jërë ngeen euh, jëf yéen ñi safoo di teewlu seen xibaar info yegsi nañ ak beneen xibaar jëm ci Coumba Gawlo la sekk Coumba Gawlo nag gannaaw ba ko suñu naataango waa l'observateur yi dalalee ci ab entretien moom nag daal di nañu koy posé ab question jëm ca dundam di ko laaj nag naka la mën a def euh, ba mën a gérer ci at yi mu am amagul borom kër amul it ab doom moom Coumba Gawlo Seck nag daal di nay tontu ci question boobu ak dal. ak mat gu mat euh, sëkk moom nag euh, ma nga leen di xamal mbir moomu yàlla moom moo ko ko teg te bés bu ko yàlla naree dindi nag dina ko ko teggil waaye nag euh, du benn sénégale moom mooy toog nag di ko xamal ne war naa am jëkkër wala sax muy am doom moom Coumba Gawlo Seck nag ma ngay xamle ne xolam moo ko moom te moom nag mooy xool la ko arrangé rek mu def ko moom Coumba Gawlo sekk nag yemuloo foofu ma ngay xamle ne ñàkkub doomam ak ñàkkub borom këram bi terewu ko benn yoon mu dund dund gu neex te moom nag xolam mu ngi belli te li koy e, dimbali ci situation bi mu nekk nag moom nag ma ngay xamle mooy du mës a xool li nga xamante ne yàlla daf ko ko xañ la muy teg bëtam rek mooy yàlla xéewal yim ko jagleel moom euh, Coumba Gawlo Seck ñu gën ko xam euh, ci la diva ma ngay euh, remercier nag bépp sénégalais rawatina africain yi gannaaw ba nga xamante ne ma ngay waajal fête 40 ans de carrière fii ci musique bu Sénégal moom nag ma ngay jaajëfal képp koo xamante ne mës nga ko accompagner ci carrière ba ñu xam ko ci àdduna wërngal këpp moom Coumba Gawlo Seck nag ma ngay xamle ne mbirum euh, jëkkër ak euh, doom bés bu jotee rek euh, yàlla dina def li gën ci moom loolu nag daal nay tax ba ñu samp ab laaj est-ce que fii ci réew bu Sénégal lépp lu ñu gis rek war nañ ko fàttali nit ki di ko xamal ne kañ ngay am jëkkër wala sax amoo doom ndax mbir mu nekk na loo war a xam ne war nañ ko fàttali nit ki mel ni sax euh, kuy dem ba di ko juger même bu fekkee ne loolu nattu bu yàlla di teg ci doomu aadama la ndax euh, ku sañoon nag di nga am euh, jëkkër wala sax nga am ay doom waaye mbir moomu nag yàlla moom moo koy dogal du nit ki moo koy décidel boppam laaj bi nag moo di est-ce que lépp lañu war a wax est-ce que lu bët tegu rekk làmmiñ war na ko tudd